maa ngi tudd Mohamed Adama Dia nekk infirmier nekkoon le président de l' association des infirmiers au niveau de la banlieue ak groupe Mission Sénégal donc man may teewal ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci corps médical bi nekk ay paramédicaux paramédicaux yi boo ko déggee xeex bi nekkul benn benn benn benn corps kese ay sage-femme la ak ay étudiant en change femme sa en sage-femme ak ay infirmier ñu nekk ñoo xam ne dañoo jugee ba ci àll bi ñi ñu ngi jugee ba Ndar Tambacounda Saint-Louis fu nekk état bi moom moo leen orienté du ñoom ñoo def choix médecine bien vrai que am na ñoo xam ni seen choix ak seen option médecine la woon mais am na ci ñoo xam ni ministère de l'enseignement supérieur ñoom ñoo leen jël orienté leen au niveau des écoles privées ñoom nag bëri na ci ñoo xam ne tey ay doomu baadoola lañ ku mel ni man seen waajur yi seen loxo jotul ginnaaw am na ci ñoo xam ne fu nekk lañ jugee ay Kédougou ay Kédougou lañ jugee ay Ndar ay Fuuta Tamba ay huit kilomètres après ci àll bi seen parents yi ay gerte la ñuy jaay wala fonde ñoom biñ ñëwee fii ci réewu taax seen mbébét mooy lan ñëw fii jàng kafuñu pour am seen diplôme d'état dem ñibbi si seen gox servir foofu nekk ay ICP infirmière chef de poste wala maîtresse sage-femme wala ñu nekk wala ñu nekk li ñu doon pour jëriñ seen dëkk parce que boo demee ci àll bi manqué na ku nekk xam na ni infirmière chef de poste manqué na chaque jour ñu gis ñiy kaas poste de santé yi maîtresse sage-femme sage-femme manqué na ci àll bi gis nañ ni jigéen ñi gis nañ ni jigéen ñi dañuy matu ci àll bi di jël ay charrette ñu leen ni ñuy dem problème évacuation gis nañ décès maternel yi te ñu xale yi tey ëllëg ñoom ñooy nekk yaakaar diriger maternité yi ñoom ñooy diriger post yi ñoom ñooy nekk ci hôpitaux yi ay major de service kon tey ñoom bu ñu amee choix jël étudiant bi jàng am na ci ñoo xam ne bac lañ am ñu nekk ci S euh, public bi ak privé bi ñoo yem am na fi étudiants yoo xam ni bac S2 lañ am ñu orienté leen kon ñooñu tey yaakaar naa ne avenir deme lañ kon bu ñu jëlee seen choix orienté leen li leen war mooy ñu jël booy yi toppatoo leen beneen bi mooy école privée yi ñu nekk école privée dañ leen di comprendre parce que formation de santé dafa cher inscription bi sage femme d'état plus de ay 150 000 175 000 200 000 nga jàng 2 ans 3 ans parce que ñoom dañuy fay les professeurs li ñuy fay prof yi dafa donc téye nañ fa élèves yi maintenir leen deux ans trois ans mais biñ ñëwee xool tamit seen fonds demeewul noonu mënatuñ aussi tamit lu dul évacuer élèves yi ñoom tamit aussi sonn nañ parce que aussi am na lu leen xaar kon dañoo bëgg ñi nga xam ne mooy ministère de l' enseignement supérieur bien vrai que aussi rattaché nañ ci ministère de la santé ñu xool xale yi gëstu leen tey ñoom ministre yooyu autorité yooyu mais ñoo ngi jël ay milliards dem di jënd ay oto ay avion ay 60 milliards ah quand même qu'on ay 60 milliards di ko jënd ay avion tey gis nañ ñoo xam ne ay directeur société lañ ci nguur gi tey diriger ay structure di jënd ay oto 4x4 yoo xam ni seen jabar seen soxna lañ ko jëndal mais xaalis boobu noonu ñuy jël di ko yàq mënuñoo jël étudiants yi fayal leen bourse yi ñu am arrière ci au niveau des écoles yi leen orienté ah, mais loolu du yoon dañoo bëgg xaalis boobu ñuy yàqati buñ defee tey xayma boobu tey def statistique bi milliards yooyu noonu tey fayal na école privée mais ana étudiants yi nekk ci public bi ñoo ngi à l'aise ils à l'aise booy déjà dañoo am dañoo am pression mooy pression bi mooy lan notes yi ñu leen di laaj déjà pour ñu valider seen i module ba pare bëgg ñëwaat loolu rek stress la bëgg ñëwaat ñu amaat problème de paiement seen parent yi ñuy dégganteel amuñu benn information dàq nañ sama doom am na ci étudiants yoo xam ne bu ñu jugee ci région yi bu ñu ñëwee fii dañuy jël chambre ñoo koy fay fi ñu loger bëgg ñëwaat di fay seen stage yi ñuy valider ci école yi dañuy demaat sax ñoom au niveau de l' école ñooy fayaat seen i dans les hôpitaux ay 5000 ay 10 000 état bi toog di leen seetaan alors que les étudiants en faculté médecine soo demee ci seen stage dans les hôpitaux du ñu fay amuñu benn raison boo xam ne ñoom dañ koy fay mais pourquoi Sénégal il est temps ñu respecter les infirmiers et les sages-femmes chaque jour chaque jour chaque jour madame Bigué Mba Mbodj kaas ko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo génn nekk des infirmiers d'état wala les aînés les anciens il faut que ñuy gestu booy mënuñu pare buñ paree am seen seen seen liggéey wala fonction publique jël leen li ñu doon kaas buñ paree dem toog ci roq bi ñun dañuy ànd ak ñoom tout le temps di xeex fuñ ñu woo dañ leen di wuyu paree wuñ ci dara comme Sénégal nag baaxoo na boo waxee moom dig jël si la bay ñu ci dara buñ pare nañ ñu jël si mais l'avenir de demain est là voilà les étudiants ce l'avenir de demain